que je suis pas là pour faire le procès de nos politiciens. Mm. Mais je dis que sur les vingt dernières années, ce que la République a subi comme outrage venant des politiciens musul am Sénégal. C'est-à-dire la République les fondements même de la République ont été sapés. Mm-hmm. et loolu yëpp boo ko xoolee ce n'est que pour des intérêts partisan soo xoolee de 2000 à nos jours on peut aller bien avant euh, 2000 mais euh, damay rafetlu déjà que c'est ce qui s'est passé avant mille moo indi justement ces alternances là mm-hmm. donc quelque que soit euh, ay greffe li ñu leen mën a teg seen ndodd mais jàpp nañ ni que am na lu ñu fi teg la nga xam ne tey moo waral Sénégal ñu koy way ci àddina bi yëpp mais de 2000 à maintenant c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir et qui ont utilisé l'appareil d'État pour satisfaire seeni besoins personnels et seen besoin partisan c'est-à-dire seen besoin politique c'est des gens qui se sont dit que avec la force d'un appareil d'État mun nañu tordre le cou à la constitution mun nañu tordre le cou à la volonté populaire mun nañu tordre le cou même au calendrier républicain parce que ce qui se passe aujourd'hui ba ñuy toog di xalaat. di ko xalaat di ko xalaat rek le fait le seul fait d'y penser. mais c'est insulter les Sénégalais. 2012 le 12 février 2012 président Macky Sall moo toog fii Ndakaaru daal di ne toog di xalaat rek report mooy dañu yàpp Sénégalais yi et un jour de plus bu ñu ko tegee au-delà du mandat du président Ablaye Wade mooy que ce dernier est dans l'illégalité la plus total mooy que mm. Sénégal amatul njiit. et mm-hmm. que moom et que moom dana dem délogé ji ko daf gouvernement parallèle parallèle mais alors c'est ce même monsieur bon de toute façon c'est pas une surprise parce que de toute façon li mu waxoon 2011 2012 ak léegi yëpp yëpp dafa ëlbatiku dafa mel ni karma la la mu doon wax yëpp yëpp yëpp promettre ko Sénégalais yi promettre ko sur le pays sur la gestion du pays dafa ëlbatiku mu mel ni encore je le répète karma la alors c'est ce même monsieur qui observe parce que je n'irai pas jusqu'à dire qu'il tire les ficelles mais qui observe que des gens de la scène politique je reprends les termes de <laughs> Birama Birama mhm. di manœuvrer di œuvrer di dem sax sañ sañ laa la wax taxaw bay accuser mais nommément des juges constitutionnels c'est-à-dire que dans ce pays on a tout entendu on a tout servi au conseil constitutionnel tout hein mais de mémoire laa la wax taxaw dégg fii ñi fi naan tel juge mhm. parce que moom président Macky Sall ba mu koy wax 2012 jiiñul benn juge dafa ne mhm. le conseil constitutionnel dañ leen corrompre mhm. Wade da leen corrompre jëndal leen ay terrain jënd may leen ay terrain ainsi de suite ay oto c'est ce qu'il avait dit mais sutiwul mais là 2024 qu'on nous dise que benn parti taxaw na parce que son candidat a été recalé légalement ñoom taxaw nañu am sañ-sañ ne dañ ci jaar accuser deux juges constitutionnels yemuñu ci loolu ils vont vers une con euh, une commission d'enquête mhm. parlementaire ce qui est de leur droit même si <laughs> vraiment moi j'ai on peut en redire on peut redire encore mais plus grave ñuy wax waxu maintenant une administration corrompue mais elle est corrompue depuis le magistère du PDS cette administration là il faut le rappeler à Nafi Diallo elle est corrompue depuis le magistère de Abdoulaye Wade voilà mais boobu gisuñu ko woon léegi on ne se suffit pas à accuser des juges à demander une commission d'enquête maintenant on sollicite un report, un report. mais c'est-à-dire c'est manque de respect même aux Sénégalais quoi